mu ak cant gan lépp loo mën di gis na ngay sant xéewal na ngay sant kay muñ tawat nag ba ko muñ ak cant gan lépp loo mën di gis nangay ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na ngay sant xéewal di muñ jëpp lor ngirum gaay yàlla ngi nii soobu ko amaana nga gis gaay ñuy ree ko bég di sooxaale ay lor yu dul teggi dañuy dox di nëb boo ko nëbbi tawat te koo te koo gis ca ñoom mus cagar doy na ko lu dul doy di doy nag te luy doy di doy murit mbubb daal ak tubéy doy na